mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci suba talaata ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñi suñu jaamu yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit waaye sàmmal ñu suñu iman ba mu bañ a rëcc ba bu ñu demee mu mën a kontaan si ñun moom suñu borom waaye yàlla nañu yàlla taqale ak jàngoro bii jëli ko ci àdduna ni mu ñu jaaxale te jaaxalu ko moom boroom bi yàlla nañ ko fi jëleel barke alquranul karim bi nag mbokk yi guddul sax de waaye dafa ëmb maanaa yu bare bare dafa wax ni awalu man yaatasiru huwa al ashja wa awalu man yusaamix huwa al aqwa wa awalu man yansa huwa al wax na dëgg dafa wax ni ñetti tolluwaay yi il faut nga mel nii pour mën a am tolluwaay yi bi si njëkk mu ni képp koo gis muy njëkk a baalu rek nee na kooku moo am courage gis am na nit ñoo xam ni su ngeen waxee ba réeroo ci kàddu pare nañ ci dootuñu nangootee wax yow jaral na leen ñu bàyyi laa àdduna ak àllaaxira ndax lan di ay considération yu ñàkk fayda waaw nga xam ne man borom jom laak bu yaakaaree man ma tudd ko bu yaakaaree ma baalu ko dina dee dina torox yooyu yëpp baaxul mu ne nag kay njëkk a baalu nee na kooku mooy boroomu njàmbaar yonent bi sallallahu alayhi wa nee na daganul ci ñaari jullit ñu xul loolu ëpp ñetti fan suñu rombee kii xool goos kee xool droite kenn du nangoo wax ak mu ni ki gën ci ñoom ñaar nag mooy ki njëkk a woote jàmm xamoon ne bu ñuy baal jullit yi seeni bàkkaar muy altine ak alxames dañu wax ni duñu bokk da ci ñin dul baal ñaari jullit yu am jafe-jafe ba ñu tuddante duñu wax kon mu ni ki njëkk dem jéggalu moroomam nee na kooku moo am courage te kooku mooy jàmbaar ñaareel bii nag mu ni kii njëkk a baalu oh, eh, kii njëkk a baale nee kooku it mooy mooy mooy mooy jàmbaar moom it ki nga xamante ne bu ngeen amee problème day ñëw baal la day baale bàyyi loolu it tolluwaay bu rëy la am na nit ñoo xam ne da dégg ñu am man lu ma nit lebal ma fay ko ku ma lebalug mbaax ma fay ko waaye ku ma lebalug bon yàgg yàgg dinaa la ko fay déedéet loolu baaxul yàlla taggul ñooñu yàlla dafa wax ni kii jàmbaar mooy ki nga xamante ni wa yadra'uuna bil xasana as sayyi'a boo euh, boo leen defee lu lu lu lu bon ñoom liñ koy jiñee mooy defal la lu baax ñu kon ki njëkk ci boo ko tooñee mu baal la nee na kooku it wax dëgg yàlla boroom kàttan la te ku jàmbaare la ñetteel bii nag mu ni kiy fàtte ki njëkk a fàtte nee kooku mooy ki heure mooy ki texe maanaam nit doo doo jàpp benn mbir rek téye ko ci sa xol bi man de xëy na sax bal naa ko waaye duma ko mas fàtte li ma def téye ko sa xol bi jëmale bu kenn xamul nee na it loolu da lay tardeel da kon boo baalee ba pare da ngay fàtte da ngay dégg ñoo xam dañ naan je pardonne mais je mën naa baale mais du ma fàtte loolu baaxul da ngay baale ba pare fàtte kon ñett yooyu daal la ñu doon jàngal tey yàlla ñu yàlla jox jikko yi nga xam ne jikko yàlla gërëm la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu